tey doomi Wakaam ñoo fi daje fii tey amul fii laa bokk amul fële laa bokk doomi Wakaam ñëpp ñoo daje tey pour tàllal loxo état di wax ak di ko rappelé ne ko suñuy maam dañu abale woon ay suuf pour utilité publique suñuy maam yooyu jëloon loolu jox ko état état di dem di dem ba soxla si taxoon mu ñëw ñaan suñuy maam loolu jeex civil yi daan dugg si camp yi ñu interdit leen camp yi tëj yi di fa def ay borne di fa tabax ay immeuble di fa tabax ay logement guney Wakaam ne pourquoi pas ñun ñu jot waxaa ki nga xamante ne mooy kilifa ñépp ñu laaj kooku mooy kan mooy le président monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ki nga xamante ne nii mooy le PM monsieur Ousmane Sonko woowakaan si boppam di leen rappelé ñoom ñoo ne woon jub jubal jubbanti ya gunay wakaam ne gannaaw dafa am ñu ne jub jubal jubbanti ñun wakaam ku ñu xam xam ne mën nañoo sànni xeer ku ñu xam xam ne mën nañoo taal ku ñu xam xam ne mën nañoo baare tali mais gannaaw njiitu réew mi ak gouvernement dañu ne boo amee lu la métti toogal nga def sa point de wax ko lul si man ñu jàppale la si suñu xel nag dina dal parce que monsieur Bassirou Diomaye Diakhar ba mu demee Ndingler di laaj waa seen droit boobu yàlla joxu ko woon tànk tey gañe la boobu waa Wakaam ñu lay invité ci suñu foncier ban foncier la mooy camp yi ñu wër ak la nga xamante ne nii mooy littoral bi di géeju Wakaam li ñu metti ci Sénégal dafa metti dafa bari aussi moo tax tey jeunesse Wakaam bopp dajee di leen wax ne yabaluñu kenn kenn waxaluñu ñun ñii ñooy yëkkindoo ñun ñii ñooy dóorandoo fas ne tàllal leen suñu loxo pour ngeen jox wakkaam li nga xamante ne nii mooy moomeelam si camp yi ñu wër la wakkaam fi mu tolli si football day fay si camp bi chaque fin de mois cinq cent mille francs te tamit ba tey man maa abale wakkaam fi mu toll si sport jeunesse wakkaam amatuñu fu ñu footballee moo tax tey ñu ne luy jot jot na xoolal xale taxaw ni yëpp ñoom ñëpp seeni kër bàyyi leen dëkk ak seeni kër yaay ñee nañu ñu ngi fay location ba tey maintenant gannaaw le président yéen yéen a oote jub jubal jubanti ñun waa Wakaam ñu ngi leen di tàllal suñu loxo di leen wax ne jeunesse Wakaam a ngi nii di ñaan si njëkk ndëg pour l'instant si njëkk ndëg pour l'instant ñu jox ko li nga xamante ne nii mooy moomeelam ñu di leen wax ne ñu ngi toogaax jeunesse bu déterminé wu mbooloo foog ab ñu jiitu óolunte ñeen nañu topp ci ginnaaw gune wakaama ngi nii toog ànd seex seen imaam ki nga xamante ne imaam raati mu wakaama ko doyloo nekk ñëwal fii si sama wet ñu gën ko xam si imaam Babacar ñu di ko remercier moom tamit bu baax a baax a baax a baax nun waa wakaam am na ñuy kilifa de waane seeka dari fii réew mi tollu gune yi ñoo jël seen combat en ne mag ñi daw dara sottiwul toog leen kër ga ñaanal leen ñu ñu dem jëli ji li nga xamante ne ni mooy moomeelu Wakaam dañuy commencé point de presse bi di wax ki nga xamante ne ni mooy ibbi débat bi ñu gën ko xam ci Ibrahima Alassane Mbengue merci beaucoup tàccu leen bu baax Kay sama téléphone bi la waaw. mais kon imaam mooy tëj ma. waaw. salaamaaleykum. salaamaaleykum Wakaam donc tout nous tenions à préciser ici devant, devant l'Assemblée que nous ne sommes liés à aucune entité ici à Wakam, ni une entité administrative, ni coutumière, ni religieuse. Ce sont les jeunes Wakamois qui se sont réunis ici et euh, nous n'avons de lien avec personne. Tout ce que nous, nous, décidons, nous décidons, ici, nous l'avons fait, fait en âme et conscience. Il faut que l'on précise cela avant l'ouverture des débats. maanaam jeunes wagaam yi kese ñoo fi nekk tënkuñu si kenn te kenn tënkuwu leen lu ñu neex la ñuy wax lu ñu sentir la ñuy wax jërëjëf tout d'abord je vais lire le texte liminaire euh, objet de cette rencontre À travers le monde, il y a ce qu'on appelle les villes garnisons, c'est-à-dire des cités à côté de places d'armes, de bases aériennes ou navales, qui souvent ont une visibilité ou développent leurs activités économiques à partir de cette présence militaire. Le cas d'Okam ferait école parce qu'il n'a pas d'équivalent dans le monde. Vous ne trouverez nulle part ailleurs une localité qui accueille à la fois deux bases militaires, deux bases aériennes, l'armée sénégalaise et les forces spéciales françaises du Cap-Vert et leur cantonnement. Un bataillon d'artillerie, un bataillon du train, une école d'officiers de gendarmerie et un hôpital militaire. Cela a tissé un lien unique avec nos vaillantes armées depuis générations et dans une compréhension parfaite du concept armée-nation. Aujourd'hui, et malheureusement, Wakam doit faire, part, doit, faire, doit face aux défis que suscite son propre essor démographique. Mais il est un défi encore plus grand auquel il n'a pas été préparé. Plus insidieux que tous les autres la boulimie foncière de nos forces armées en complicité avec les services de l'État. Pour ces gens-là, une règle existe, une seule règle existe, le fait accompli. Ils viennent, ils clôturent des espaces, ils font sortir des bâtiments de terre, sans aucun souci des convenances morale et éthique. Les populations de Wakam ont dignement accepté d'être amputées de leurs terres au profit, au nom de l'intérêt public. Sur réquisition ou expropriation ou pour raison d'utilité publique. Donc, si par aventure ces emprises foncières devraient servir une autre cause, quelle que soit la motivation ou la destination, le bon sens aurait recommandé quand même euh, que la restitution revienne à leurs ayants c'est-à-dire les Wakamois. Et c'est ce qui se fait dans un état de droit. Je précise bien, dans un état de droit. C'est aussi simple que cela. Je tenais aussi à vous faire un petit rappel. Nous avons constaté dans un passé récent, plus précisément en 2020, euh, M. Ousmane Sonko, aujourd'hui Premier ministre du Sénégal, et M. Guy Maurice le plus grand activiste de ce pays, M. Barthélémy Diaz, l'actuel maire de Dakar, était venu ici défendre la cause des militaires de Terme Sud. Ces militaires qui ont été baïonnés, ces militaires qui ont été chassés de leur propre maison. Et rappelez-vous bien, euh, l'actuel ministre des Forces armées, M. Biram Diop, était En ce temps, euh, le SEMGA, il était avant de devenir SEMGA. C'est lui qui tenait vraiment le dossier de, la Comico. La Comico, qui je rappelle, est une entité privée qui a été créée par des soldats à des fins purement foncières. Les militaires sont devenus de grands boulimistes fonciers. Pourquoi Je m'explique. Quand M. Sonko et M. Bassir Guimar Sagna tenaient ces conférences de presse, ils ne savaient pas qu'aujourd'hui, qu'ils seraient soit président de la République ou député de la CDAO. Donc aujourd'hui, nous leur faisons un petit rappel. Le temps peut changer certaines circonstances. Mais le temps ne doit pas changer les hommes. Nous leur rappelons que les Wakamois sont décidés à reprendre leur dû. Wakam ne peut pas accueillir dans les années 92-93 des militaires pour leur donner la cité Comigo pour qu'ils y habitent. Mais imaginez-vous, ces mêmes militaires, 30 ans ou 40 ans plus tard, reviennent pour euh, reprendre les terres de Termeside et vouloir y édifier des logements à usage d'habitation, des piscines pour leurs enfants, des écoles pour leurs enfants. Et pendant ce temps-là, les Wakamois sont dans la pro totale. Mais allez tableau tout derrière nous, mais les gens s'entassent dans les habitations. Une maison peut contenir jusqu'à 40, 50 personnes, ce qu'on ne connaissait pas auparavant. Les Lebou, les Wakamois, aujourd'hui on ne plus Lebou, on dit Wakam, parce que Wakam est la ville la plus cosmopolite du, Sénégal actuellement. Mais aujourd'hui, mais si l'État devrait changer à distribuer les terres, mais au moins le minimum de décence aurait voulu que cette distribution-là concerne avant tout les Wakamois. Parce que les Wakamois qui sont les plus près de ces emprises. Donc, regardez les Boulois, les Guissorois, les Sidavions, les, les habitants de les habitants de Pouakam, ils sont tous dans la même situation. Ils n'ont pas d'espace pour euh, vivre, ils n'ont pas d'espace pour s'épanouir. Mais ça devient dangereux. Habiter Wakam, maintenant, relève d'un parcours du, du, combattant. Même pour aller en ville, pour se déplacer, c'est tout un problème. Et ce que nos grands-parents avaient accepté en donnant des camps, sur réquisition ou Nous, les jeunes, on l'acceptera pas. Il faut que ça soit clair. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne serons jamais des mendiants dans notre propre terroir. Ce que c'est notre dû. Et nous l'aurons. Inch'Allah. Et nous donnons un petit rappel à son Excellence, Monsieur Euh, le président de la République, M. Bassir Diomaye Faye. Nous l'avons vu euh, se déplacer jusqu'à Ndengler pour défendre les habitants de Ndengler. Nous l'avons vu, après sa prise de pouvoir, se rendre à Mourkat sur une surface de 2500 hectares. Et ces 2500 hectares-là valent au maximum 50 milliards. C'est très peu comparé à la contenance de Wakam. Wakam, c'est 15 hectares à Terbusit, 13 hectares au niveau du euh, camp Polapère, dit Eogène, et plusieurs hectares encore sur l'ancienne piste, des vingtaines d'hectares, ce qui fait au bas mot plus de 50 hectares, d'une valeur approximative de plus de 300 milliards de francs CFA. Monsieur le Président qui est, Euh, vraiment euh, dire qu'il y a un grand problème à Mourgat pour 50 milliards. Il a sauté ce grand patelin qu'est Wakam avec euh, sa réserve foncière à estimée à plusieurs de milliards. Nous disons que là, il y a un vrai problème. merci Ibrahima Alassane. léegi dañuy jox kàddu gi ki nga xamante ne nii mooy Dabar Seck Dabar Seck. góor ngay préparé wul Ahmed Ndoye préparé wul Imam Lamine Ndiaye tëj. je vous en prie salaamaaleykum waa Wakaam salaamaaleykum toute l'assistance yi fi ne surtout les journalistes donc comme ni ko suñu frère waxee Ibrahima Alassane en français man dama koy